toujours fii dafay am ay jafe-jafe quoi ay côté ay naan ay crime maanaam léeg dañuy faral naan dañu reyu diw dañuy rey diw alors que yéen am ngeen police tout près problème bi nii dèjà boo si doon ñëwaat nan ko ko gisee. waaw maa ngi nuyu ñëpp sant ñëpp xam nga di nuyu waa yëmbal xam nga di nuyu suñu waa koñ tamit waaw problème bi fi am nii tamit xam nga ñëpp la metti ñëpp la naqari parce que sport buñ ko buñ ko dee wax dafa war a boole mais warul tàggale. parce que tamit ñun dañ doon football tournoi xam nga football tournoi pare dem final bu demee final war na ñoo mën a féete suñu final final dafa neex quoi mais boo ci bëgg boole ay violence bëgg cee boole ay pistolet ay jaasi affaire yooyu noonu waaju lool waaju loolu mu def noonu ñun ñëpp mën nañ ko ñun ñëpp mën nañ ko mais duñ ko def bu fekkee dañuy ku jaay pistolet wala kuy jaay ay bal pistolet ñun xam na fi ñu koy jaayee xam na fi xam nañ mën nañoo jàng mën nañoo jàng tiire comme moom mais duñ ko def sécurité insécurité bi nekk jëmbal nag ñun ñun la ñun la gën a metti ñun la gën a metti ndax chaque instant da nga fiy dégg ay kaada de xam nga agression chaque instant da nga fiy dégg ay cas de meurtre xam nga rey nañ diw agressé nañ diw jam nañ diw mais loolu ba kañ. waaw xanaa ñu mettit lu ko lool lool lool sax parce que Ousseynou dafa nekk nit koo xam ne ñu bëri sax xamuñu ko maanaam si koñ mi parce que dafa nekk nit ku yaru nit ku baax nit ku respecté ay raqaba ki magam. kan ñu jékki-jékki ñu xëy ñu nañu dafa da dañ koo tiire loolu daf ñuy metti trop te yëmbal wax dëgg yàlla yërënt bi yëmbal nekk na carte ja xam ne war nañoo mën a jàppalante quoi ay affaire de football warul tax ñu siy rey nit quoi parce que yëmbal ñëpp xam nañ ne dañoo bëgg football kan am na yoo xam ne waru fay mën a xew ah tu vois comme war nañoo xoolaat bu baax a baax lu ñuy def surtout jeunesse bi ay footballeur yooyu jërul ay nga yóbbu ngànnaay di reyante jëru ko pour man lépp football moom foola quoi Youssou Ndour way na ko ah football warul tàqale dafa war a booloo mais ñu xëy ñu la rey nañ diw seen njaboot ay njabootam seen waa ay famem ñàkk ko noonu xam nga loolu noonu du yoonu état ñu ñu jiite amuñu ci yër yërmande ñoom bu ñu soxlaa ñu ci population ñëw caare ba juddoo ba léegi jamonoy Senghor ba léegi nii la mel dara changé wu fi amul benn changement. gisoo fi leen benn changement chaque jour la nga doon dund démb ak ba tey loolu ngay dundaat dara du changé dara du changé yow sax xam nga loolu dara du changé. la nga doon dund démb ak barki démb loolu la ngay dund mënul dara du changé dara dara changé wu fi. la nga dundoon démb ak barki démb ngay dund moo tax chaque fois booy bu ñu génne dañuy dañuy décaissé te décaissement boobu ñuy décaissé problème mu ñàkk moyen nit ki bu amul moyen bu amul ngor chaque fois mën na jaay bopp wala mu nekk bandi mais suñu état yi ñoo waral loolu état yi ñoo jàppal jàppalu ñu askan bi jàppal ñu population bi jàppal ñu nen mais yàlla na yàlla doolu sutur yu baax léegi ñun suñu dirigeant yi ak suñu njiit yi nga xam ne ñoo nekk chaque jour dañuy yëmbal yëmbal yëmbal yëmbal ñoom lan moo seen rôle si si si yëmbal loolu laa ba xam mais am nañ police mais am nañ police mais police bi est-ce que ngi def seen liggéey bu fekkoon ni tey ñun ñëpp kenn ku nekk yow yaa war a nekk sa police bopp kenn ku nekk yow yaa war am sa responsabilité bopp kenn ku nekk yaa war a xam yow am sa vision bopp mu xam ne lii kat su ma ko defee kat jiyee dina am wala lii kat su ma ko waxee xam nga euh, dina dinaa créer benn attentat wala ma créer benn tension boo xamante ne nii comme képp ku ko dégg dinaan ah diw de moo def loolu loolu waru ko woon def mais suñu policiers yi ñoom ñu ngi def seen liggéey ñu ngi def de mais comme que yow bu da ngaa nekk yëmbal yëmbal moom nekkul benn police kese moo ko mën a moo ko mën a régler police yi fi ñu ko def nii baax na baaxul parce que am na feneen foo am na feneen beneen côté boo xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo ko gën a yelloo comprendre nga ñoom ñoo ko gën a yelloo ñoom defuñu ko foofu ñoo ñu indi ko ba fii fii amul problème fii amuñu problème fii am problème moom xam ñoom ñoom xam nañ ko mais duñ ko duñ fa dem fii am problème ñoom xam nañ ko mais duñ fa dem comme ñun ñi nga xamante ne nii xam ñun amuñu benn problème dañuy toog xam nga ataaye waxtaan xam nga jàpp suñu bopp ñu la ñuy sonal. waaw ah xoolaat yëmbal tamit sécurité bi quoi parce que am na loo xam ne boo koy organiser bi war ngaa war a dem police déclaré ba pare soo déclaré ba pare ñu ñu indil jox la ay kii yoo xam ne ay sécurité yoo xam ne dañoo mën a xool mais jékki-jékki organise benn affaire boo xam ne ay nit dañ siy dee loolu c'est pas normal quoi yëmbal war nañoo xoolaat sécurité bu baax a baax a. am ngeen police. oui am nañ police police bi wax dëgg yàlla moo ngi bay waaram mais j'espère que xam naa ne ay éléments am dañoo doyul quoi parce police bi nekkul police bu mag. police bu ndaw la quoi wax dëgg yàlla ñoo ngi ñoo ngi béy seen waar quoi mais si côté si côté jeunesse bi dañ gën a xamaat seen bopp. gën a xamaat ñooy kan quoi parce que yar dafa baax si doomu aadama surtout boo nekkee ndaw war a yar ëllëg réew mi war ngaa xool bu baax ni ngay doxalee jeunesse bi laa su ma soñoon dama leen lancé appel quoi ñu gën a xamaat seen bopp waaw jë gën a amaat ay teggin quoi xamaa seen bopp bu baax a baax baax suñ ko defee rek gëm naa ne réew mi dina dox te si suñ quartier dina dox yëmbal parce que ñun ñëpp yëmbal lañ am yëmbal ñoo ko moom war nañoo mën a gën xool niñ ko defee ba gën a nice tu vois baara gay tamit ñoo ngi koy ñaan terrain mu defar ko comme que da koo toj jeunesse amuñu fu ñuy fubalee. d'ailleurs sax loolu moo waral ngeen bàyyi terrain bi dem beneen terrain bi fubalee fa. looloo waral loolu. Balla Gaye comme que toj na stade bi terrain bi terrain bi la jeunes yi doon fooyee xale yu ko defar kaw bi yëmbal dafa bëri ay xam ne football rek la ñu yaakaar te si lay si si la si lay si lay moo leen gënal lépp kan na leen defaral stade bi. dañ dañ dañ koy nangu tamit xam ne lii ndogalu yàlla la mais tamit ndogalu nit mi ngi ci. parce que tamit yow nan ngay nekkee homme ni tenue yor sa pistolet di génn di génn ak moom fii amul guerre amul xeex amul dara mas la mais négocier comme que xeex am na nañ négocier mu jeex parce que fii làmb ak masu ñoo ànd coow ak ak ak ak ak ak nit ñi ñoo ànd bu coow amee da ngay ñëw nga négocier ñu calmer ko ñëpp calmer wu mais lan ngay génnee sa pistolet dóor ñaari bal ci kaw waxatuñu dara nga tur du tourné waat dóoraat beneen bal bal boobu moo dal Ousseynou Ndiaye. après ñu dem def autopsie ñu ni xooma bo loos bee dam affaire mais bal boo xamante ni gémmiñ la daal sa gémmiñ nga ni loos moo dam mais tamit xam nga loolu tamit loolu bu ñu ko déggee lan lañ lan lañ lan la ñuy def après loolu ñun bu ñu ko déggee lan daf ñuy metti daf ñuy metti mais nag nañu sant yàlla xam ne yàlla ni la ko bëggee ni la ko dogalee tamit jaam bu nekk xam nga ak ni ngay ñëwee ak ni ngay demee ak ni ngay demee mais nag gënaluñu nag. gënal nañu bu ñu soñoon Ousseynou Ndiaye day dund nekk ak ñun xam nga chaque jour ñun ñoo daan bokk benn teere yëmbal bii la naan petit camp yi chaque jour. chaque jour mais bu ñu demee ba ba suñu biir xam nga am koo xamante ne manqué nañu te chaque ñu daan bokk di toog di ataaya di waxtaan di bo demandoo daayira di demandoo ay xam nga burdu ay conférence su ne. mais bu ñu demee bu toog bu ñu ñun fàttaliku ñu diw lañu ko rey xam nga affaire boobu tamit daf ñuy metti quoi daf ñuy metti trop trop trop.